salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam di sant Serigne Touba radiyallahu taala anhu ñaan yàlla fayal na ko te yàlla tax suñ ci ay barkeem di di sant euh, Cheikh Mouhamadul Fadil bi ma booleeg Serigne Touba di sant di ñaan yàlla fayal na ko te yàlla tax suñ ci barkeem. di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général des Mourides mu yàgg fi loolu te wér bari muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal Serigne Touba lépp mu àggale ko sago te nu fekk ko te ànd koog moom noonu lañu koy ñaanale njabootu Serigne Touba gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di siyaare suñu bokk yu baax yi teew fii yépp di teg bi ak siyaare bi ci loxo Cheikh Ahmadou Badawi mi jëwriñu daara ji mu jot ñu ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Mountakha ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér yàlla yokk koy ndam yàlla yokk ko wér ba muy li muy liggéeyal Serigne Touba ak li mu bëgg liggéey Serigne Touba lépp mu àggale ko ci sax ko te nu fekk ko te ànd ko moom lu ñuy siyaare suñu njaboot gu tedd gi fi teew Serigne Ousmane Mbacké Serigne yëpp di siyaare Serigne Salih Salam xam ne suñu wëla réew yàgg lool di siyaare Serigne Cheikh Awa Balla ak bokk yi fi teew yëpp rek bu ñu nee bokk yëpp rek ñëpp ngi fi eh, defe naa ne li programme woon sax mooy may mujj wax waaye yàlla dafa dogal ma ma joxe woon kàddu ba noppi am mbooloo may xaar ci daara ja ba ñu ngay tàmbalee ñëw mooy bañ nag toogaay ba yàgg moo tax may naa ñaan rek ñu may ma ma barkeeloo kàddu yi te te yeewee ko bu defee ngeen àggale jotaay bi waaye gis naa programme bi li ngeen ci may mujj jël kàddu loolu mu leen di bu baax baax sant waa Fokaab Fokaab ndax ku liggéeyal Sëriñ Tuubaa ku la ci doon loo dara rek war nga ko war a sant eh, bu ko defee eh, ñu ngi sant waa Fokaab ñëpp di leen sant ci liggéey bu rëy bii ñu def tabal ñu ci boole ñu ci ci gàttal di nuyu Sëriñ Sax Salef Salaam ak bokk yu baax yi fi teew yëpp suñu sama mbokki daara yëpp rek sëriñ Saliou di ku ñu ku ñu yàgg moom la ñoo bokkoon ca daara ja Maroc moo ñu mag moo jiitu waaye suñu xarit la woon suñu mag la suñu magum taalib yi ñu yàgg jaxasoo moom xam ko ci lii yàgg gëstu yàgg bëgg xam-xam ci ak yu baree bare macha allah eh, ñu koy ndokkee bu wax ci liggéey bu réy bi ñu ko ñëpp ndokkelee eh, ci gàttal rek mënoon naa ñëw rek nekk pur produit université marocaine mais nekk ko dafa nekk taalib bi mu nekk jekk moom la woon ca daara ji bu màggal ma saan ñëw dañuy daje màggal mooy def waxtaan lu ci ëpp wax juñu nañu ko fi sànq ñu ngi ko daan defee ci ëpp kër suñu mbokk mu baax suñu sëriñ suñu Isxaaqa moom Cheikh Abdoul yàlla ko yàlla yokk wér te dajee di waxtaan waxtaan bu ma ko daan dañu daan fanaan buñ buñ booba di ko defee xam ne nag dafa dafa xawoon ne li ngeen di wax intellectuel dañuy toog ci kaw di waxtaan def débat waaw en toute liberté ku nekk wax la sa xalaat ba suba ñu julli bi ñaan ñu waaye naka jékki nii mu mel la ma samel yàgg bëgg xam-xam yàgg am méthodologie yàgg nitu nitu xam-xam di borom mbir nag di nëbbu loolu moo loolu moo dama ci feeñal tuuti tey ndax dama am suñu mbokk mu baax mu daan wax ne kuñ ne sa bàyyi fi man boo jàmbaar jàmbaare war a xonq yi bët te defe naa ne waajuram ñu bari xam nañ ko mu bëgg nag mu am lu mu dogal mun muntaxaa dogal ko mbooloo mi bala bala ñoo sori na dogal ñaanal suñu taxa yàgg fi loolu te wér ñun ndongo yi itam ñu yàgg fi loolu te wér te ñu ngi ko jàppale liggéey bi ba na coreet ba ba ba mu àgg ni mu ko bëggee kon c'est loolu dañu la koy sas ndax am na lu ñu xam ci yow day day nëbbutu nag waaye dama ko dama ko bàyyi mu dama koy feeñal ci wàllu googu eh, gis naa téere li ci ëpp jàng naa ko xam naa xaw na xat sax ndax jamonoy màggal gi ma ko jot waaye dañ ko ci sant bu baax a baax ndax mu ne ko jekk universitaire la borom méthode la borom gëstu la xam naa ne am na lu am na lu bëgg a sërxal waaye dama ko nangu rek lañ defal lañ ko ñaan ba noppi rek ni ngeen ko waxee téere bi ci 261 page sëñ sëñ docteur loo wax na ko mu am solo lool di deuxième édition bi ñuy sant waa FONCAB ni mu ko waxee FAVOCAB la ñu nga xam ne ñoo ngi dugal ci liggéey bi leen sant leen gërëm leen ñaanal di tàmbalee observation bi rek ci sëriñ Saliou Salam asala bi muy wax ci ci euh, mbirum sëriñ bi nga xam ne moom li ko gën a ñor mooy sëriñ Tuubaa ka mu fakkir asil loo xam ne taamul na ak turaasil islam yi taamul na ak fikral islam yi am na ci mawqif leeral na ko wane na ko ci gàttal waaye moom mi kenn gënu ko ëpp sax la moom sallallaahu alayhi wa sallam yàlla guddal faram damay wax nag ci ci dédicace bi lay tàmbali dédicace bi wax ci ki nga ko dédicace tuuti muy sëriñ Cheikh Mbacke dafa wax ne al ihda ila Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma boobu temps biir rek wana na asala mu ne ma Ahmadou Mbacke ibnu Cheikh Ahmadou Moustapha Mbacke ñëpp xam ko waaye li tax mu ci Gaynde Fatma loolu asala la ndax sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ñëpp ko xam muy tudd aslu bi sëriñ Tuubaa lañ ko jëlee muy mag waajur suñu sëriñ ñun ñëpp loolu xam nañ ko waaye mu yokk ca gaynde Fatma gaynde traduire ko sax dafa bàyyi gaynde ko ci noona kon asala la kooku asat ak ak ñàmbaar ma suñu waajur tedd wa di di suñu maam di suñu yaay di suñu waajur ngeen xam ko judd ko ca muy muy lu am solo ci culture euh, locale bi xam ngeen ne suñu Serigne Saliou pur arabisant la en arabisant raffiné fin arabisant mënoon naa am tendance patriarcale xam ngeen ne arab en général duñu dàkkante ni ci waajur bu jigéen kenn doo fi dégg ñu ne la Mouhamad ibnu Amina wala fii koy xañ ne koy way waye di ko wax waaye duñu ko wax pour ñoom nit ci bàyyam loolu da fekk muy culture arabe bu fa nekkoon waaye li ma ci bëgg a wax rek mooy sëñ Saliou da ko consacré da ko bàyyi xam na ko waaye da ko caa bàyyi te dañuy wax fii Sénégal ni liggéeyum day añub doom liggéeyum day day añub doom te ñun naka jekk mag ñu baax ñi dañu daan dekkal seen waajuru jigéen dañu caa dakkantal maam Mor Diarra maam Cheikh maam Thierno dégg nga Fallou Awa Boussa Moustapha Amin Amin Amin na ngeen ko xamee Cheikh Amadou sëñ Bachir Fatou ni ngeen ko xamee sëñ Cheikh Awa Balla sëñ Mourou Awa Balla de li ma bëgg a wax rek mooy culture waajur wu jigéen maanaam valoriser waajur wu jigéen day bokk suñu culture te sëñ Saliou ci asalaam dafa génne loolu muy aspect bu am solo te sëriñ Cheikh mi ko radiyallahu anhu dama ci am lu lu ñu bëri amul ci benn yàlla dafa dogal xam nga doon nit ku nitu xam-xam yàlla dogal ma dem jàngi réew ñuy wax Algérie ma bind ko lettre dama fay ñëw di jàng bëgg nga ñaanal ñu ne xam nañ ni nga sonn ci jàng di nga jàpp jàkkale jàggee dimbali jàngalekat yi yooyu yëpp xam ngeen ko mu tontu ma lu raar ba diwul ñuy am lettre Serigne Cheikh ma am am ko mu bokk ci la ma wax li may wax c'était en 72 na nga góorgóorlu baax ci njàng mi ndax seen maam ju baax ji su ma sañoon gone yëpp def ni yéen ndax seen maam ju baax ji moo raw ñu bari nga xool prudence ba moo raw ñu bari te lu mu def ci xam-xam la ko teg te it réew moom mu nga nekk. ndax bu ne ko dama ci bëgg def diraasa mu nekk mu zakkira même maîtrise ah, non non yii euh, voilà ba noppi ne ma muzakkir bi da nga koy def français mu yeneen bi te département d'arabe nga xam ñu nekk portugais ak espagnol ak français ak anglais seen i mémoire langue moom la koy def mais moom da def da ngay nekk département d'arabe mooy la mémoire bi def ko français def ko français en français li am ren fii naf si yaa xóot <laughs> bu ko defee loolu rek eh, kon sëriñ bi en tant que mu allif mën nañu cee wax lu dul jeex màggalu waa gi yàlla barki dem rek nga xam am yëpp rek mën nañ cee bind lu jeex sëñ Saliou xam ngeen ko waaw sëriñ bi jéggal gi mu jéggal tubaab yi ñu ngi wax affaire tolérance ak fi fi jamono ñu toll ku ne coppi di ñu lay sànq tooñ la tooñ sa sa biiru njaboot yóbbu la nga jéggal leen loolu rek mën nañ cee wax lu dul a gudd dama rek ndax euh, euh, dañoo bëgg jataay bi te sëñ Saliou ñu yàgg ak moom euh, yàgg a toog ak moom ci yu mel nii yàgg cee gëstu te te di leen ndokkeel mbooloo mi itam ci jataay bi di ndokkeel sëñ Mouhamadou Badawi di jokkal Cheikh Mountakha mi waral lépp nag ndax lii ndam lu la kon daal euh, sëñ Mamor bëgguñu gën a guddal dañoo bëgg a bàyyi ba ngeen jeexal ñu door a tënk waaye comme dafa am mbokk ñu ñuy xaar fale moo taxoon ñu rek di fetliku suñu ko ak nga xam ne yàgg nañ lool maa ngi fàttaliku benn jotaay benn jamono ma dem siyaare ko Meknès yéegi rabaa fekk Meknès ñu am ñetti fan ndeysaan wax waxtaan waxtaan yu bare bare bare macha allah kon loolu lépp yiw la loolu moo law ba indi rek kon ñu leen ndokkee ñëpp di nuyu suñu Ousmane di nuyu suñu Hassan ak sama oustaz oustaz Hamdi Jatara ak bokk te euh, euh, bokk yi baax yi te teew yëpp rek li sant bu baax a baax leen ndokkeel di ñaan yàlla defal ñu mucc ak wér te yàlla yàggal fi Cheikh Amadou Mountakha ba li mu sumbal sëriñ bi lépp màggale ko ci sago te ñu fekk te ànd ko moom ci barkeb sëriñ Touba wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf sëriñ Mamoun mu sëriñ Fallou nga xam ne mooy président d'honneur bu FAVOCAP ci kàddu yu am solo yooyu mu doon yëkkati di ko jëmee ci Serigne Saalix mi nga xam ne moo bind téere bi jëmale ko it ci téere bi nga xam ne moom la bind waaye jëmale ko it ci mbokk yi di Fabocap nga xam ne ñoo ko génne te ñett yooyu rek mooy yi ñu fi dajale tey muy kàddu yu am solo yoo xam ne ku ko dégg dana la soññ te di nga xam ne it ko doon wax nitu xam-xam la waaye it jël na temps ci livre bi li muy xat-xat ndax nee na ci màggal gi la ci jot waaye li muy xat-xat na ko lii mu ci wax di yu am am solo kon balaa sëñ Saliou joxalante ak moom ay nuyoo bay ñëw ngir jël kàddu ñu wéyal lim ñenn ci mbokk yi nga xam ne teew nañ fi sëriñ Pape Thioubou sëriñ Cheikh Ndiaye sëriñ Cheikh Ibrahima Diagne sëriñ Abdou Karim Mbacké sëriñ Mbacké Lo sëriñ Fallou Fall sëriñ Fallou Ndiaye sëriñ Khadim Fall sëriñ Moussa mambala sëriñ Maam Samba Diop sëriñ Abolo sëriñ Saliou John sëriñ Mapenda Ndiaye sëriñ Dame Guèye sëriñ bu Mbacké sëriñ Mbacké Diop sëriñ Fallou Niang sëriñ Pape Mbaye Fall ñooñu bokk nañ ci ñi nga xam ne teew nañu fii ci jotaay bi ñu leen di sant bu baax a baax sëriñ Lamine Diop sëriñ Djili Ndiaye Touba sëriñ Abdou Lahat sëriñ Mourtala Seck sëriñ Ahmadou Mbacké sëriñ Cheikh Moussa Diouf sëriñ Alhaaji Silla sëriñ aboo Thiaw sëriñ Ousmane Euh, Ndiaye sëriñ Amar Ndiaye sëriñ Abdou Khader Ndiaye sëriñ Abdou Khader Thiaw sëriñ Thierno Thiaw sëriñ Modou Silla sëriñ Abdou Lahad Bousso Maram sëriñ Abdou Lahad Bousso Maram sëriñ Moustapha euh, Talalo sëriñ Ahmadou Diop sëriñ Cheikh Diak sëriñ Mor Ndiaye sëriñ Mbacke Gaye waa Faydul Ghaniyul Mourni nee nañu teew nañ sëriñ Talla Gaye sëriñ maam Cheikh Ibrahima Gajaga sëriñ Basiru Sam sëriñ Basiru Sarr sëriñ Ahmadou Diop sëriñ Mbacke Kunta sëriñ Moussa Sarr sëriñ Moussa Seck sëriñ Elimane Sarr sëriñ Aliou Diop sëriñ musa Diouf moom it bokk na ci ñi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi xam naa nag du ci ñàkk ñoo xam ne sax ay kuréel lañ teewal waaye liste bi noonu rek laa ci jotee moo tax. sëriñ Cheikh Ndiaye mi ngi fi sëriñ Fallou Sow sëriñ mbay Guèye sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbaye sëriñ Fallou juuf ak sëriñ Mouhamadou mbay sëriñ mustafa Diouf sëriñ Cheikh Diop ñooñu kon ñu fi teew lañ. Mansour Seck Hizbut Tarqiyyah. waa Hizbut Tarqiyyah sëriñ Mansour Seck Hizbut Tarqiyyah mi ngi fi. waa Rawdu Rayaahiin tuddoon naa sëriñ Mor Ndom ak sëñ Mor Bousso waa Fabocab ñoom ñoo woote waa EEM Seydina Omar Ba sëñ Murtada Kébé sëñ Bamba mbay waa wilaaya sëriñ Xasan Mbàkke moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma waa daayiratu Hizbu Tarxiya sëriñ Mansour Seck sëriñ Elimane Sarr sëriñ Aliou Diouf euh, waa Mahadul Khalil sëriñ Cheikh Waalo ñëw na sëriñ Moustapha ak sëriñ Cheikh Diop ñuy sant bu baax sëriñ Mamoun di ko kon ñu woyofal ko moom mu mën a yeewee ko ndax dafa am ñu koy xaar ci kër ga docteur Abdou Lahad Lo mi ngi teew ci jotaay bi teewal fii waa complexe Ahmadou Khadim docteur Abdou Lahad Lo mi nga xam ne moo jiite euh, faculté bi nga xam ne moo nekk fii ci université bi oustaz Khadim Sall maa ngi ko fi gis moom tamit bokk ci jamayatul baraka di suñu xarit di suñu rek moom tam ñu ngi koy gis ci biir jotaay bi waa école sëñ Cheikh Gaynde ma ñëw nañ waa Mahadul Khalil bu sëñ Cheikh Waalo sëñ Moustapha Diop ñëw na ak sëñ Cheikh Diop xam naa bu ci kii rek ñu laat euh, dañ doon may sëñ Saalix mu ñëw toog rek ngeen ñu jox ko kàddu gi kon kàddu yu am solo yoo xam ne sëriñ Mamoun mu sëñ Fàllu yëkkati na ko insisté na sëñ Saalix ni mu taxawee ci Cheikhul Xadim ak Cheikhul Xadim mu fakkiran maanaam sëñ bi ni mu doonee ab mu fakkir euh, am na lu am solo lu sëñ di tudd ci biir téere bi ne sëñ bi am na ñett yoo xam ne ab mu fakkir mënu koo ñàkk am na ko mooy am na am na ruya muy vision am na manhaj muy méthode am na waax bil manhaj mooy xam na manhaj bi nu mu nu mu ciy jaare ngir mën a jëmmal vision boobu mu loolu sëñ Saalix mi ngi koy mi ngi koy jëm ngi koy leeral bu baax ci biir téere bi ci ñett yooyu nga xam ne